ñu ne dañoo ñëwoon tey ngir ah. siyaar si la. waaye waaye tamit nag fas yéene waxtaan ak yow. ci li nga xam ne jàpp nañ ne. ci Cheikh Ibrahima waaw ci maam Cheikh Ibrahima bi nga xam ne nag moom ñépp ah. moom lañu bëgg. mooy ñëpp waaw. Ah. <laughs> xam naa ne leen li ci ci looñ ci mën a nettali ci li nga li nga li nga fekke ak li nga xamante ni ñi man ñi fekke nañ ko. ak lañ ca xam ak lañ ca xam waaw. moom daal tey moo ñu fi taxat taxateew tey waaw. <laughs> lu mu wax rek la. Mm-hmm. lu mu wax rek la lu mu mosaa wax rek de gis nan ko. Mm-hmm. lu mu mosaa wax nan ko lu ma leen yéene mm-hmm. nii. ko gis. man mii nag. Cheikh Ibrahima jëkk a génte ci géb bi ci laa bokk man ci xanta mooy mooy seexu Mbawar. booba ñun ñu ngi Mbawar Mbaayu. waaw sëñ Malick mooy si am booba njëriñ la féete. Mm-hmm. ndax këram ni eh, njaboot gi ne gébb. Mm-hmm. tool yaa ngi falli ñoom di ko béy. Mm-hmm. ak foofu it ja daal si wàllu wàllu Aale Ndiaye Aale Ndiaye si jëm yooyu. yooyu tool mo sëñ Mor ko moom. waaw waaw. dëgg la waaw. waaw day ñaan yàlla rek suñu borom gën a guddal fan yi. amiin amiin amiin amiin. amul solo. ci demee dama rek saa yu morom jafe. ndax man mii kat. ñoo bokkalan. kenn nekkatu fi. ñoo bokkaale kenn kuy yekkatu fi de man mii la fi yàlla baali waaw ndax fi ne ni maa ngi ci téeméer ak ñett ci itam de ci leen ñi tamxarit gii mooy sama téeméer ak ñett mbàkke roxay may de bañ ko fanaan bañ booba gi ba bàll la bañ ko ngéntee ca guddi ay bukki ñëw na ca ëtt boobee ndax ba baa booba booba ñoo na fa di mm-hmm. waaw waaw waaw waaw mm-hmm. xam naa fi am na nag gébb googee na tey mm-hmm. mot soola mae fa ne ab dubee ko mag gébb tey waaw mooy boo ne ab dubee ko mag ab daaw xari mag fa gébb gébb googee tey mot soola may day la gàtt gàtt gi Abdou koy Abdou ko Abdou ko mag. waaw Abdou ko mag de. Abdou mm-hmm. ko mag de. ma dégg ko maam Cheikh Ibrahima di ma laaj may wax. waaw boobu de. ci lañ jaay benn ci géej. waaw moom daal dañoo dañoo bëgg nga dund cent trente sept ans. dundee. waaw dëgg yàlla naa ngi sant bu baax. nag yàlla yàlla mi xam mm-hmm. ne. nga sëñ ma Rémi Diop moom yi. Mm-hmm. moo nuy ndiw gébb. sëñ ma Rémi. moo jëkk a jëmblu ci ci mbawar mbawar ci ñun. sëñ Mor Ami Diop sëñ Mor Ami Diop. Mm-hmm. moo jëkk a jébbalu Cheikh Ibrahima Thioune Lambo. sëñ Mor ba mu jébbaloo. Mm-hmm. mboolem ñi di magam. Mm-hmm. dañ koo dogal wàcc. dañ koo dogal wàcc nangu nangu jébbal ga. Hmm? ku la fekk doomi ko ko de mel di borom yàq bu le war a falu. ngay takki der di di yelwaani. Hmm? Hmm? waaye moom moomee. mujj na ñoo ñëpp ñëw ci Cheikh fekk si ko Cheikh Rafal hmm? fekk si ko Cheikh Rafal moom moo leen am ko defee ba mu jekkee ba kii nag mu mu ñëw gi mu ñëw gébb gi sama baay ñoom sama baay Cheikh Penda hmm. sama baay Cheikh Maysa hmm. maagi mba maagi mbaawar daal ñoo ñoo àndoon ñëw fii di di gor ay tool. di go tool. di gor di moo mhm. rëmi di goral seen bopp ndax kenn ku ci am nga fa sa suufas bopp. Mhm. ci waa mbaar mbaar yeeg rek. Mhm. Hmm? yàlla dogal na nag sama maam Aliyanta. moo doon jëwriñam. moo doon jëwriñam Aliyanta mooy sama ni yaay baay. mooy ni yaay Moussa Bey. ku ñu Anta Wolof mooy ndeyam. ma sañ cay baayam. Hmm? ma ci moomee. mooy bàyyi mooy bàyyi alliente hmm? hmm? hmm. ma sanc ma sanc ma ma sanc ak ak ak ak ak ak alliente mooy mooy moor daaw gi moor daaw gi mooy taaw ma sanc mooy taaw ma sanc kii ca topp ah, ah, ba aminata di sama maam góor a mi moor a mi topp ko alliyanta topp ca moomu mhm. senta ngoone topp ca moo mhm. hmm? mhm. rami jóob mii moo moo moo moo jëkk a jéblu Cheikh Ibra Fall ci ñoom ci mbaxar mbaxar yi ci mbaxar mbaxar yi waaw ah. bakal dogalee ah, ah moo dogal ñu ñëw gébb gii nekk njëriñ bi ñu nekkee njëriñ dañu daa xëyee njëriñ ñëw yendu gébb di gor ba gor bi àggee bañ tolloo ci di bayit dañu daa xëyee gébb di ñëw yendu si dañ daa xëy njëriñam ñëw yendu si ñëw di liggéey ba wàcc jot yoon wi mm-hmm. booba bu ñëwee ba njax mm-hmm. dañuy duy xandi ndox lañuy xandi ndox yi ñuy duy andaale mm-hmm. andaale andaale njagoo kii njakkar ma jeey bu ñu yendoo ba ngoon ñu ñibbi bu ci ëllëg ñu def ko bu ci ëllëg saa ñu def ko hmm? ba dogal sama moore mi bi yàlla dogalee mu ànd mu ànd ak ci moom la jébbaloon ci moo ci moo reme la jébbaloon mm-hmm. waaye ba mu ñëwee mm-hmm. sa ba mu ñëwee sa maam yóbbu ko fa Cheikh Ibra Fall mm-hmm. ba ñu àndee dem fa mu nuyale koog moom mu ne ko mu ne ko kii kii nu mu tudd mu ne ko mu ne ko mu ne ko mu ne ko Njaay Mbay mu ne ko deet Aliou Diop da Njaay Mbay la liyente tudd waaye mu ne ko Aliou Diop <laughs> hmm? loolu indi turu ku ñu commencé a tuddee ba mu nekkee mboor Njaay Mbay lañ koy wax mm-hmm. ah Njaay Mbay lañ koy wax mm-hmm. moom mais nag mm-hmm. sama baay mii cay jëw ñam la bokkante Moussa bi ci jëw ñi leenta la bokkan jal baax na moo koy indi fii mu nangul ko lépp gantu luñ ko dara hmm? fa nekkan Cheikh la Fall nag liñ daan dégg mu di ko wax liñ daan dégg mu di ko wax dafa wax ni foo ma saa jaare dëkku jàmbur la bii dëkk mooy sama dëkk daaru muyit xam nga gébbutul gébbu daaru muyit la daaru muyit daaru mu ne daaru muyit gii foo ma saa yaag fii nag mooy sama dëkk foo ma saa yaag da koy bii dëkk def naa fi ndox sama si sama yàlla mu sotti ko sa suuf hmm? def naa fi ndox sama yàlla mu sotti ko suuf hmm. Hmm. waaye nag na ngeen góor góor le toog te xam na la fa ndax dana leen fekk fii am benn bis mm-hmm. baayu mbàkke moom yi mm-hmm. ak saa bàyyi liggéey mm-hmm. ñu ànd dem ngay rooti ba ñu demee rooti yendu fanaan ba cell sa tisbaar saa borom tombee nag ak saa maam Cheikh ñëw toog fi buntu këram boobu yi booba àll rek a fa ne ba ñu baam seen ndox bàyyi ko yoonu ngay aw ci tund wa saa maam Cheikh ne waaw ñee ñan la ñu ne ka ah, ñee de waa kër sa jelleen mu ne ah fu ñu deman mm-hmm. ñu ne ko am ah, de dañoo deman ngay rooti di démb lañ deman ngay rooti mu ah démb ba tey mm-hmm. ah loolu doy na waa ak ah, doom bu ñu jekkee ba dëkk wañ ma deñ mm-hmm. bu ñu jekkee ba dëkk woñ ma deñ wañ ma deñ mooy robinet mu dellu ne lafandaat <laughs> dañ leen fekk fii ah. kere ba jekk ba ñuy jën yi ñëw na maa ngi yéene jënd leen te <laughs> Cheikh Fall leen jël leen jën am na ñu daal xamuñu nu ñuy foofe jën de jënd leen Cheikh Fall waxam dikk leen sama moo bi maye ba mu jekkee ba yàlla dogal li li li li li yóbbu taal bi yóbbu ko mm-hmm. mu wàccu ngoonu takkusaan mm-hmm. ñu yeggali ko Cheikh Ibra Fall mm-hmm. Cheikh Ibra nag daawul dem ci armeel moom daawul dem ci armeel nag ma nga ci biir dëkk bi foofu kër Cheikh Ibrahima Fall daal la armeel yi njëreem ne kër Cheikh foofu ko muy ñëw ñu ne mag ñi ah waa ñëw Cheikh Ibra mag ñaam ah, ci armeel da ko mas a bañ ñëwee mhm. a ne ah sama dikk bi ma dikk lay jaaxal la leen <laughs> mhm. ñëw gi ma si almee xanaa jaaxal la leen ah jaaxal na de mhm. mu ne waaye nag kii tëdd dama ko mënut a ñàkk a tiim more mii mun ma ko ñàkk a tiim waaye damaa bëgg leetar bii ma yor la ñu leen ma càngam yi ba jot dani bi ngeen teg ko ci more mi laayal boppam dara fam jëm boo mu jëm <laughs> dafa laayal boppam dara hmm? dafa laayal dara boppam hmm? <laughs> su ngeen seet duma dem ci armeel nag day su ma duggee ci armeel yi ruy ñoo wax samay moo tax du ma dem ci armeel fooy ne ruy raxas samay tànk moo tax du ma dem ci armeel hmm? moo tax ne ruy ruy ñooy laxas samay tànk ruy fi ñu si denc hmm. dañuy laxas samay tànk moo tax du ma dem ci muy lépp du ma dem ci armeel hmm. waaye la jëkk a demee ci armeel ci la mu demee ci ci la mujjee demee armeel ah waaw Cheikh Rafal mu wax loola loola dara lu mu wax dara. gébb googee luy lu luy xew lan sax ndax fii de mm-hmm. daaru muyit. Mm-hmm. daaru muyit la ko tudd. Mm-hmm. tey de lépp ah, ah, ah, tey de lépp ñëw na tey. lépp ak ba lépp ak ma maam Cheikh Ibrahima moom moom bi muy dem fan la la bi muy bi muy wàcc liggéey fu la fekk. xanaa fii nag. fii gébb la ma fekk waaye nun Cheikh Ibrahima daa jógee julli si nun di ànd moom <laughs> barke Cheikh Rafal Cheikh na maam dama du doyal ci maam Cheikh Ibrahima moo tax ma bu ma saa jógee ci kër Cheikh di julli si hmm. ma nga nuy fekk fa jullikaay bi nu ànd ak sunuy bàyyi ak dem julli ji korite la korite ak tabaski korite ak tabaski la ñaari miir yi kay la am hmm. Hmm. tabaski korite mooy sunu jël sunu naa mbooloo mi bëri lool te mu mu ne su ko wax ah Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall yàlla ca kat day dox day dox de. bu ma saajee kër Cheikh day. war du waat war war day day dox mbooloo mi topp ci moom rek. waaw waaw. mbooloo mi topp ci moom. daal daal di saraxul la loolu ñu naan daal di saraxul daal di yor kupp yi fii. boobu moom lay def. boobu man mi ak Fallilu. ñun mag jëmm lañu. gis nga raay bi bañ koy gas. raay bi bañ koy jëmee si ko Touba. man mi ak Fall. dan daa dox ba joteetu nu soog a nge booba noo ngi jéeyam dan daa dox ba joteetu nu mm. soog a toog soogal bàyyi dem bi mm. Mm. maam Cheikh may sa bàyyi Mbàkke bii ah. chef la woon ci ñoroon mbooloom chef la woon cheikh la ah waaw Baye Mbacke Diop. Ah. cheikh na ah. cheikh la yoroon. chef d'équipe. yor yor ah chef d'équipe ah, moom chef. te ñi ko jiite woon ci la bokk. te ñi ko jiite woon. Mm. yi ci yor mbooloo mi ci la bokk. ndax xam nga dañ daan def équipe bu ne. Mm, ak ña ngay ña ngay àndal di leen wax fii la. Mm. équipe bu ne noonu lañ ko defal. waaw noonu la noonu la ko waaw. Eh. dañ doon dox ba jiiteetuñu soog a bàyyi mm, nag dem nañu ba ba tolloog saabe mm. soog a bàyyi dem bi waaw mm. ah, soog a bàyyi dem bi nag moom moom moom fan nga ko njëkk a gisee maam Cheikh fan nga eh? ko njëkk a gisee Cheikh damaa judd rek nekk fii ci tànkam <laughs> ah, maa ngi dégg naa léegi moo la moo la moo ci lu wér <laughs> ah, dégg nga sa maam Moram yi dañ ko tuddee Cheikh te di ko wooyee te ko wooyee Cheikh Penda. Cheikh Penda Cheikh Penda mooy Baye Fall. nañ ko tuddee cheikh bi te di ko woowee Baye te di ko woowee di ko woowee sama Baye. sama Baye. dama daa toog ba yàgg. mu ne ma cheikh. day penku lay ba nga xam nangam ma ma ne ma demul si nangam yot ma. waaw. ba nga xam nangam eh, da wuti nangam yot mm-hmm. waaw waaw soog la koo wax loolu lañ ah, maa ngi ne di mm-hmm. mm-hmm. ba nga xam nangam mu ne am ah, da wuti nangam yot loolu lañ daa def di ah, waaw waaye sama bay soo ko mos am na jàmbaay bi mu ne njëriñ di ñaw machine machine sama bàyyi dañ daa ñaw di <laughs> tay tay lor la ñoon sama bàyyi bi mu lañ koy jaawaleen sama bàyyi nee nee na nee na Cheikh Ibra mm-hmm. dajale na ba nuy fukki machine ak ñaar. Mm-hmm. Hmm? def ko yu tàgg wax jaww ji. waaw mi ngi ci moom kay mi ngi ci. dajale na ba nuy fukki machine ak ñaar. Mm-hmm. ñu ngi satal teg fi suñu wet. ku dem ca gaan waaye ba satal la gàgg fa. mu ay wëlis yu doy ak i piis. ne ay jëlloo bi rek lan doon ñam. Hmm? baam fa fukki fan ak benn. waaye nee nee nee nee ay wërs lañ ko waaye nee na nee man musaa de yéen hmm. yéen doon ñaaw te di ko indi sëñ Touba de hmm. nee musuma dox fenn ba gis ca loo xam ne hmm. ma lii ci doon liggéey la saabay ko xaj nee dox ba gis fenn xam ne lii Cheikh yoo doon liggéey loolu fakk moo leen yóbbu fakkar Cheikh googe fa dugalee ci ñi ku wàcc sa machine ba ñëwee jaas kuy ñëw ku ne da ngay jàpp waaw waaw waaw waaw waaw waaw loolu la de loolu la de Mhm. loolu lañ def de nee daal musuma dox ba gis lu bokk ci loolee mhm. musuma ko mais sama bët Moussa allah yére yéen ñu yutoon Cheikh la sëñ Touba ne musuma dox bay sulu ca bokk man man Moussa mhm. ci nu ña doon ne waaw waaw <laughs> sama it ay tajal la xoolal sama sama baay sama baay Cheikh Maysa Cheikh Penda sunu mag yi Mbawar daal ñëpp ay Kajoor lañu woon. Mm-hmm. sunu mag yi Mbawar ñëpp Kajoor mm-hmm. lañu woon. Mm-hmm. ñëpp Kajoor lañu woon. te ñooñu ñëpp li tax maam Cheikh Fall kii moom Sëñ Tuubaa rek moo taxoon. waaw dégg nga. Ah, ñoom nag. daawuñu nekk ak formangu ñoom. ñoom. bu ñu naafee gerte. du ñu nekk ñu ngóobum saa ñetti wala mbéy saa ñoo xew. waaye nag ñay noor si bu ñëwee ñoo leen di yor. ñoom moom la ñoo leen di yor bu ba ñu ñibbi si biir. ñooy joxe dépense de ñoom Kajoor yi. ñoo koy jox Awa. Awa ñoo koy jox Awa. ñoo koy jox Awa. Ah, waaye moom ah waaye sëñ bi nan ah, sant yàlla baax rek sant rek di sant yàlla baax rek di mi kenn gënu la maam de. <laughs> ah la maam de. <laughs> moom dañoo xamul ci moom dara ndax dañ ko fee fekkul moo tax xamuñ ci moom. ah waaw waaw leen fee yàggu leen fee moom bu ngeen fekkee. waaw fekk ñu ko fekk ñu ko waaw waaye nag mag ñi fi nekkan la ñuy wax rek ngeen di dégg. dañuy wax rek ngeen di dégg. ah waaw. moom ma ma ne maam Serap Fall de mag ñi am na loo ñoo xamante ni moom sañ-sañ leen defaloon. ma ne maam Serap Fall mag ñi dafa mel ne am na ñoo xam ne sañ-sañ la leen defaloon. sañ-sañ sañ-sañ la leen defaloon. waaw ci lu wér mag ñi ah mag ñi lii Serap Fall defal ndax am na ci liggéey baagu fa. Mm-hmm. doolee ko def waaye seenum liggéey agu fa mm-hmm. waaye doolee ko def doolee ko def doolee ko def doolee ko def doole ko def de mas na maa gis benn bés day mm-hmm. ñu ne sa ñëpp laat dafay ñëw cere coro sàll waxaan waxaam des ñu sa ñëpp laat dafay ñëw waaye bam tàgga ba yàgg bàyyi cere naa weddiwuma ngeen gis ko ko ko sëñ Abla waaye jëmmi sëñ Abla ci dëkk bii hmm. gisuma ko ci yoon wi de Ceerno Sall laa woon <laughs> ko ci yoon wi de waaye na nag mel na ko xoromu la woon ah xoromonte daa ànd dara di ah, ah. ma ne ah xaw weddiwuma ngeen gis ndawal sëñ Abla hmm. waaye sëñ Abla gisuma ko ci yoon yoon gi bi gisuma ko ci hmm. moom itam moo noon du ma deeyee Tuuba deew Tuuba amul xorom boo dee dañuy jungut jongate daa dem ci xabay <laughs> damay dem bëgg ma dee fa ah. ñu di ma musigal ba ma agsi ah. <laughs> tamxaat lay tamxaat lay dem nag te fii laay tamxaat tey mm, mm, mm. noonu la defee bisu lañ koy indi fii bisu tamxaat lañ koy indi fii ah. ah, te noonu maa ngi dem gébb waaye fii laay tamxaatee bisu tamxaat bi lañ koy bëggoon nañ gébb loolu na gébb gébb borom dëkk ba lam fa def ba fu mu ko def de man na maa waat yàlla ne gébb yàlla na aji fekk ji rek xam naa man moom naan la ñoo ngi ñaan bu baax xam naa man bëgg ci gébb mm. Mm. foog naa mënatuma koo fekkee wax dëgg yàlla mm. waaye nag lii dina tax ñu gën a xamaat gébb ah, waxtaan yu mel nii ah, gébb dina tax ñu gën a ñu ñu gën a xamaat gébb waat ko ban na ko foo jógee koo xam ne kii de soo mën a ne fu rek say néeg da nga ko def mm-hmm. billahi maa la ko barke yàlla fa mm-hmm. gébbay dëkk ba mm-hmm. nga xam nga man mi di wax ak mm-hmm. mu woon a dëkk fu dul gébb mm-hmm. waaye nag daa wax ne yor doone fii lañ may yore ah saa baay daa wax ne koñ yor doone fii lañ may yore mm-hmm. Ah. kër fi ñëw ngayel laa fi ñëwee ndax booba dañ koy nangu dégg nga eh, booba barataay nag ci gébb fi barataay cheng gébb ma ñëw fii daa ci daa daa sengu ñaari néeg daajal ndaam sengu ñaari néeg moo moog sëriñ daa yóbbu bal daas. daaj hmm? beneen benn benn seng boobu bari naay seng. waaw hmm. ah, waaw nii daal lañ fi dikkee ay bis gaal ba matee. Hmm. lépp ku ci ne am na foo dugg. ku ci ne am na foo dugg ah, waaw waaw. lan def de ku ci ne am na foo dugg de. noonu lan def ah, waaw waaw baax na de yàlla baax na ku ñuy wax Baye Mor Ndiaye tomb del mi noonu ko. de gis naa ko waaye taxul ma xam gis naa daan naa ko gis carrière. Mor Ndiaye tomb del. ca góor ña de. mu ne xanaa kii yëngu ko. suñu Aliou Fall moom daal moo di may tànk bari moo di tànk moom waaye ku baax la woon. ku baax la woon. man mii. danoo xëyee gébb watalante ba fees di ko siyaas ñoom sëñ Elifane Ba di ko siyaas ba nu ñëwee nuy nuyoo ba ba ma agsi jox ko loxo sayar baan do do do da nga ko dégg sayar baan sayar ne ko kooku cheikh bi mu bàyyi Moussa bi te laa ma ca maam góor ba fii danaa am danaa am ca nga naaw cheikh bi mu bàyyi Moussa bi fii Touba gii da dana waxtaan lam def di ko siyaar oh, ah, ah, oh. hmm, ah, si ah sëñ lii daa yàgg na yàgg na mbawoor de léegi yàgg na mbawoor de yàgg na mbawoor de léegi yàgg na mbawoor de waaw waaw sëñ Modou Moustapha Fall de miinul nga ko loolu sëñ Moustapha Fall rek laa miin hmm. sëñ Moustapha Fall rek laa miin laa dem fi moom ba booba tay sëñ saag fanaan na ci nii bii sëñ saa faal waaw waaw moom rek laa mi te saa baay naa fa daal yónni nag saa baay daa xam ne sëñ saa faal day saab sëñ di saab xarit loolu daa moo tax keroog saa baay waa ci yëpp liggéey ba sëñ moo dem te ñëwee dane su ngeen gisee ma def lii kat damaa xam ne su ma jekkee bi su sarax ba ngeen bëgg a waxtaan ak yéen duma ko mën te kii du sama ab taalibe sama baay la waaye kii du sama ab taalibe sama baay la loolu la xam ne moom sëñ ma dem taal kii du sama ab taalibe sama baay la ah waaw waaye sëñ Moustapha Moustapha ilawaaf tuwaarkal tuwaarkal la man mii takke naa sama takke naa takke naa fas gébb mm-hmm. ñu yónni ma ci sëñ Moustapha boobu fa ci gaañoo mm-hmm. ñu ne ma nga guy ngeen daal di guy ngeen mm-hmm. fii daal xëy ba dem dem guy laa ko fekk mm-hmm. daal di guy ngeen laa fekk sëñ Moustapha te waaw wax la na joxe ñaan waaye yàlla moom mooy sos mooy wedde moy mooy sos mooy wedde ah, waaw waaye li mu fi nar a bàyyi dara mënu ko faa teere ah, waaw la ah, naa lañ ko toppee nii moom mën nañ cee fanaan moom mais du doy du doy xool man kat man kat fekk nga naa sëñ Tuubaa ne Cheikh Ibra ne lu ma doon dox fàtte naa ko lu ma doon dox ba dem ci pinc mais lu ma doon dox loola fàtte naa waaye nag alhamdulilah noonu sant yàlla te seen yoon wii maama naa Cheikh Rafal lu ngeen bëgg da ngeen ko ci am barke Cheikh Rafal barke Cheikh Rafal maa ngi koy ñaan ci doole Cheikh Rafal barke Cheikh Rafal barke Cheikh Rafal lu si Ibrahima Fall nag kooku rek laa miin di ah, si Ibrahima Fall nag kooku rek laa miin mm-hmm. si Ibrahima Fall nag mm-hmm. ah kooku rek laa miin sëñ Issa Mbacké sëñ Issa Mbacké moo tudd si woon sëñ Moodu mm-hmm. ba mu ñëwee sooda bi mi njëkkee di fab bi jox ko bi toog fii de ma taxaw fi bunt mu ne bàyyi Cheikh man Fall ma waxuma dara de ka ah, man Fall lu ma lay wax liir bi góor la mu ngi say Mm. ne lu mu ca teg mu ne wàcc nga kat mm. <laughs> ah, man fàllu ma la liir bi góor la mu ngi sëy loxo mm. mu ne wàcc nga kat ba mu tuddee ba nag mu ne kon nag tuddee naa ki fi nekkal Cheikh Rafal booba bàyyi na suñu kon nag tuddee naa ki fi nekkal Cheikh booba la ñuy liggéey kër gi kon nag tuddee naa ki fi nekkal Cheikh ma ne ko jaajëf fàllu loolu rek la ah, loolu bu noonu waxee noonu wax lu wax siul foofu mu ne ma kon nag tuddee naa ki fi nekkal Cheikh Rafal waaw ah, bu nu dajee bu nu yëngu dafa ma ne ana borom turu mag ba du ma ne sëñ ma day ana borom turu mag ba rek la ma <laughs> xam Ibra Fall nag <laughs> moom ndax mm, dëgg yàlla mm. alhamdulilah nan sant yàlla moom mi féetee ak moom mm-hmm. nan sant yàlla moom féetee ak moom moom noonu féetee ak Cheikh bi mm-hmm. nan sant nan sant yàlla baax rek mm-hmm. nan sant yàlla nan sant yàlla baax a baax a baax a baax a baax li ma xam daal ci Cheikh Ibra Fall xam naa ne mooy baabul muridiin ah, lu mu ne nala nala lu mu ne nala nala lu mu hmm? ne dafa wax ne daa wax ne sëñ ma baabu gi kët Mhm. ba mu jógee di mhm. ne sama dëkk bii ko taxal a jóg mhm. waaye maa fi teg maa teg sama tànk waaye tuuti kon maag ma boobu ko dara xor <laughs> ne ma boobu ba mu jógee muy sam-sam googee fii ko taxal a jóg waaye teg sama tànk waaye ma boobu ko dana xor-xoral tuuti kon maag si tuuti kon maag ah? ah, waaye sëñ bi man delloo sant yàlla nun mii nga xam ne danoo laxasu ànd ak Cheikh Rafal te te bu ñu nee sëñ Tuubaa ne Cheikh Rafaal sax waxal ne mm-hmm. sëñ Bamba bi mm-hmm. bala maa yaatu ci moom damay mm-hmm. ne ca penku doon doon yilimaanam mu doon sama maamoon Cheikh Ibrahima noonu la bala maa sëñ Bamba sama sang bii damay ne ca penkoom hmm? doon yilimaanam mu doon sama maamoon bala yaatu sëñ Bamba sama sang bi suñu ma dee denc nag nañu gas bu mu wóor ne maa gën a suufe maa gën a suufe sëñ Bàmba ñu soog ma faa def loolu joxe woon ndigal de mm-hmm. gis nga ko fa mu nekk tey mm-hmm. foofee ñu ko def moo joxe woon ndigal foofee de moo hmm? joxe woon ndigal moo joxe moo joxe woon ndigal de mm-hmm. nag man de loolu sant yàlla bu baax man de noo ngi sant bu baax tey ñaanal sunu mag ña fexe ba nu ñëw fii indi fii noo ngi sant bu baax ñun de noo ngi sant yàlla sant ndax fi mu nekkat wax dëgg yàlla nun ñi nga noo doon taawi gébb de kenn ko ci ne mën na laa wax loo xaye du dañ ci gépp mm-hmm. Mm-hmm. ndax la waral loolee noo di taaw mm-hmm. mag ñoo daan wax nooy seen biir ñu wax nuy dégg la doon wax nag dong la ñuy nettali la doon wax képp la lañuy nettali waawoo ndax gépp goo gi de moo fii mooy dëkk bi daaru muyit daaru muyit la ko Cheikh Fall tudde daaru muyit waaye ah moom li ñu xam ci moom lépp mën noo toog fi benn benn wax ko la ndax sunu xel mayetunu ko sunu xel mayetunu waaye Cheikh Ibra Fall mooy lépp mooy lépp Cheikh Ibra Fall mooy lépp kon moom kon moom bi mu fi nekk boobu dund nga ak moom ay ay bi mu fi nekk mas nga ko gis booba mas nga gis maam Cheikh Ibra nun daay day la nun nun maa fali lu yóbbu Cheikh Ibra daa bàyyi ko xamu Cheikh Ibra kër Cheikh la daa jóge fii la jëkk a dëkk mm-hmm. foofu miir na googi la jëkk a dëkk mm-hmm. mais na ba wopp tàngoor bi ñëwee mm-hmm. ba wopp ya dal mu ne si fekk dem ci bopp moom ci boppam dem sañ ci miir kër Cheikh kër Cheikh googe kër Cheikh googe ñu naan màkka looyee dégg nga foofee la sañ ci foofu la dem sañ ba mu ko defee nag yàlla mi dogal dogal ba sama maam moo remi foofu ay cheikh rek mir mir ne gi ay cheikh rek a fi dëkkandi mhm. cheikh soosé fa dëkkan mhm. da leen a woo ne leen mhm. def naa moo mi muy seen teg naa ko fi seen kana muy seen pilote moo remi Jóob mu muy seen pelote. Mhm. teg naa ko fi seen kanam. Mhm. mu ne moo mi Diop teg naa ko fi seen kanam muy pelote. pelote xam nga mooy ne ci bopp gaal bi. Ah, mu ne defal naa ko mu ne fi seen kanam. <laughs> defal naa mu ne waaye sëñ moo waaye moo mi Diop. Mhm. wax dëgg yàlla tuwaatkat la. ndax palukat la ñu doon. loolee moo ci ko ca gannaaw. jàpp Cheikh Ibra waaye Cheikh Ibra Fall ci boppam it. moo ne. bi naam Fall ci man la jëkk. waaye palukat lañu. Hmm. Hmm. moo ne sëñ bi naam faal doom ci man la jëkkee Cheikh Ibrahima ko wax de. mooy <laughs> sëñ bi naam ci man la jëkkee moo ne ci man la jëkkee <laughs> ci man la jëkke de ah hmm. moo ko wax de. waaye nag Cheikh Ibrahima dina xam ci moom lépp daanaka. <laughs> bu nu lépp sunu xel lu may lépp waaye xam ci moom. mënuñu ko wax lépp. ak Cheikh Ibrahima. moom moom moom nit ñi dañ ko daan misaal di wax naan daan sol yére yu ñuul noonu. Cheikh Ibrahima daal. ñun lan ko xamee lan mm-hmm. lii nga gis mu sol ko mm-hmm. lii du mbaseer ñag la mm-hmm. complète bi ba am ñagg la tubéy ji moo weex ci ak la waaw ñagg xam nga ñagg rabal rab ay rabal la rabal la ah, rabal la mm. rabal la waaye ah lépp lépp lépp daje na ci moom de. lépp daje na ci moom de. <laughs> lépp lay ndax lépp lay mhm. tax ndax bu ñu sëñ Tuubaa nag daa wax ne. Mhm. daa wax ne. Mhm. Ibra Faal day. def naa ko noo xay ne. musuma koo def nit te dootuma ko def nit. ndax Ibra Fall daa xam fa ma yàlla teg mu teg ma fa loolu loo xam ne dañuy def naa ko noonu musuma koo def si duutu ba ko mm. ndax Ibra Fall daa xam fa ma yàlla teg mu teg mu teg ma fa mm-hmm. waaw loolu la kewe loolu <laughs> loo xam ne loolu loo xam ne léegi ngeen xam na ngeen laaj ko ni mm-hmm. ngeen xamal seen bopp ngeen laaj ma ko <laughs> ma ci xam baa la ma ci dégg baax xanaa kay mag ñi ko mag ñi nga xamante ni ñoom nga nekk ndooroon gébb hmm. ku ci nekk daaw dégg muy nettali ci maam seex Ibra loo xam ne ah ñooñu lañ doon wax lépp doy na waax <laughs> ndax kii nga xay na mm-hmm. mooy mooy mooy sëñ Daouda Ngom. Mm-hmm. kooka moom mm, kenn daaw ko laal. sëñ Daouda Ngom. Mm-hmm. am na ko Cheikh Rafal ne nag lu mu def ko de. lu ne nag la mu def ko de. Mm-hmm. dégg sama baay day. sama baay. moom ci boppam. daa waxan ne. daa waxan baay day baay day ko. man de Touba du ma ko du ma ko lëndatu ji de ak faatoom. ak faato mu ne damay yendu ji mm-hmm. keroog keroog yàlla dogalee sama bàyyi wàccub liggéey mm-hmm. mu yónnee ca bàyyi daya tëral ko ci ruum bi nii mm-hmm. bàyyi daya yo ba mu nga xawlu bàyyi daa waxa danaa ji waaye lan waxan defoon na ko eh. ndax Moussa noonu na man Touba du ma ko daay yendu ji waaye man di guddi lay dox <laughs> daya mu ne mu ne man di guddi lay dox guddi la dox bisub tamxarit takku tamxarit la faatu ñu indi ko guddi mu ne waaye man guddi lay dox la waaye man di guddi lay dox hmm? guddi lay waaye dama ne géb maa ngi mu fa nekk faaris nga mm-hmm. daa wax ne mm-hmm. daa wax ne eh, mat jëng fari mm-hmm. sa moom mat jëng fari sa moom dàq na si naa jili ba ca mbaxana ma Cheikh Ibrahima ko wax de oh. dane ma jéng fay sa moom na si naa jili ba ca mbaxana ma cheikh laa koy wax moo ko waxal bopp mm-hmm. dàq na ko ba ca mbaxana ma moo ko wax de mm-hmm. ah xam nga boo ko dàqee ba ca mbaxana ma di seetlu too ko dara de <laughs> ne ma jéng fay sa moom dàq na si naa jili ba ma ba ca mbaxana ma de waaye ma góor gi ndax ma faal kumba ñoom mm-hmm. ni jaay ni jaay di yaay abdou xolle mii ci ci ci ci ci takk deyu jëkk yi la ca mm-hmm. kaamal yàlla de mooy nijaay ab doxule moom la ab doxule dekkal foofu ñu naa ko faal kumba ñoom rek mm-hmm. lépp a ngi ci moom mm-hmm. lépp a ngi ci moom am na doom ji daax Cheikh Fall te mu nekkan fii di jàngal xoraan ba mu ñibbisee gébb ba yàlla dogalee bis bi nga xamante ni bi gaañu na bisu kere yëngu na yëngu goo xay ne ngi tuwarkal la Cheikh Fall xaalis moom mm-hmm. moo doon taaw moo doon taaw moo doon taaw ma faal kumba ñëw rek mm-hmm. moo doon taawam mm-hmm. waaye suñ dëkk boobee lu baax rek ku koy wut man maa mën a waat yàlla gébb dafa Cheikh Rafaal waxal maa mën a waat ne xam naa ma ne ko fekk waaye maa mën a ne gébb da da dana weesu yaat na mel <laughs> dana foo ko Cheikh waxal dana fa nag ndax lii day bokkul la mu jëm de cheikh bi fu mu ne fala fa gébb na la wóor ne mhm. dana dana doxaat ba ba jàll ba na na na nun mii nun mii jëkk a dem de te <laughs> man ñi a dem ñun ñoo mhm. ah, nun mii mhm. nooy nooy nooy ña fa jëkk a judd man falilu yabal xali njaay ci ma sunu bawar ga Fall moomee mage naa ko juróom benn weer yabal moomee mooy sunum tofa yabal xali mooy sunum tofa Fall mage naa koy juróom benn weer mm-hmm. man maa ngi juddoo gébb mm-hmm. Fall bàyyi ba ñu nooraani mm-hmm. ca juróom benn weer yi ca nooraani ca la Fall juddu fa gébb ca gébb la juddoo at ma kii at moom di nga ko di nga ko jàpp at ma at ma man nag xam nga nun da daanaka xam yooyu daanaka xamul waaye <laughs> waaye waaye Cheikh Fall <laughs> lu mu wax rek na la jàkka joojee uh-huh. Eh, gata sakketo gata haje jaggandi fof fini yak jumate eh, fof sun feñcima fimirna jumaaji sakketo gata hawa jakkande ñuy dox bañ bañ sakket ko xat ñuy dox bañ sakket ko segg di dox ba miir ko di dox ba muy jumaate ji foofi loola ko jiitoon te sunu kanam nag lépp sunu kanam la kanam la woon waaw lépp sunu kanam la bu ñu masaa Cheikh Arafaale gi ñëw kenn ku ne da ngay jóg taxaw ba ba ba koo yëg. dégg nga mm-hmm. ah daa ah, sëñ mm-hmm. ah, eh, mm-hmm. nijaayam. nijaayam nijaayam. nijaayam ah, Maafaan Ñang. moo yoroon moo yoroon daara Cheikh Rafaal. bon moom moom. suñ suñ maanaam suñ ñang suñ ba bi ñang mm-hmm. moo yoroon xar Cheikh Rafaal xar mm-hmm. yi foofu jumaa ne tey mm-hmm. boo boo jógee kër Cheikh yaa ngi jaar ci buntu daaraam ngir lu mag la fa defal làkk làkk làkk rand sol xari Cheikh Rafaal yi waaw moom ma fa mooy mooy mooy bàyyi Cheikh ñang mooy seen bàyyi moom ñoo ne tëneeful ga ñoo dëkk tëneeful ba ñoo dëkk tëneeful waaye nag Cheikh Rafal mm-hmm. nun day wax dëgg yàlla noo ngi sant yàlla mag ñi kenn ku ci nekk daa am loo ko yoraloon waaw waaw waaw waaw waaw waaw mag ñi day uh-huh. moom day rek kooku moom ba moom daara na ci ci daara ji boobu moom mm-hmm. yor ndax xale Cheikh Rafal mm-hmm. moom gi rek boo loolu la defat moom boobu moom daa nekkan fa féetew féetewu gi waaye nag Cheikh Rafal ndey sa ma moram yi day mhm. ci moom Cheikh Ibra ko ci def de ah, mhm. si moram yi jóob yi ma la wax lu ci moom mhm. Cheikh Ibra ko ci def lu ne ci moom moo koy def waaye nag ah moo ci lu ne de moo remee nu yóbbu Cheikh Ibra Fall moo ne si de ñun mii moo ne si yóbbu <laughs> nag moo topp ci bàyyi sama Uh-huh. góor mi ji sama ndey uh-huh. moo remee ci topp uh-huh. moo remee mii ma lay wax moo topp ci góor bi mi ji sama ndey ah, waaw waaw waaw topp foofi ma foofi nekk foofi foofi lu dëkk rek Cheikh safa ku ñaa sëñ ma dugi ñaay sëñ man njaay ñaay sa sëñ Ali njaay daabaay booba booba booba booba ñooñu ñëpp ay cheikh lañ cheikh balaa leen cheikhal. Mm. ñu dëkk wër ko ñu dëkk fay wër ko nag. Mm. ñu dëkk fay wër ko. ba mujj nag bi nga xamee dem ca tool yi xew na. Mm-hmm. ñoom ñoo ne ñu tuxoo a boo déggee daabaay gi. ñoom mm. sëñ li Ndiaye moo moo taxoo yéreem ñëw ñu gor daa bàyyi ko gi mu dëkk moo ko moo moo jarbaatama sëñ mm-hmm. ñoo toj àll boobu ñoo toj fo daa bàyyi ko gi ñoo ñoo ko sañ ci bay waaye nag siyaara Faal li mu def lépp mu ne su mm-hmm. fi mu jaar fépp mu ne su ko xanaa nga ca xam mm-hmm. waaye waaye sëñ moom li mu wax Cheikh la doy na li mu wax Cheikh la na ndax am Ibra Fall def naa ko musuma koo def ni tuutuma ko def ni de sëñ Tuubaa ko wax de mu ne Ibra Fall dafa fekk fa dafa xam fa ma yàlla teg mu teg ma fa. mu teg ma fa fa ma yàlla teg da koo xam mu teg ma mu teg ma fa mu teg ma fa. ah waaye sunu magu dëkk ñii. Mm-hmm. lépp luy ne ci góor yàlla mi ngi ci ñoom sunu mag ñii nu jur nu. Mm-hmm. waaw waaw lépp luy ne ci mag mi ngi ci ñoom de. Mm-hmm. booba dax dëgg yàlla day looy ne ci mag ngi ñoom ñoom it ñoo ñoo ñoo tool yooyu ñoo ko gor am ci ñu sans bàyyi nag njeel bi ba mu ñëwee ni yaayam la àndal di ko goral aliyanta moom itam kilifa la woon tubaarkalla booba booba li ma àndal baal na te ñëpp ay jarbaatam lañ mm-hmm. ak i doomam mm-hmm. booba doom yi doom yi mel ni jur ku mbëgg yooyu ci moo ci mag ñi ay gune yu tuuti lañu booba ni yëy la moo ci mag mm-hmm. makka mooy ci ma wax ñëpp ay gone la ay gone la mm-hmm. Mm-hmm. waaye danañ sant yàlla di sant yonent bi ndax lii kat foogu nu ko woon mm-hmm. jekk bay nay toog fii di ma laaj ci Yàlla Faal foogu nu ko woon <laughs> ah, béb goog yi ci Yàlla Faal moo ne béb gii yenn ku naa fi ba tay jógee Mbàkke Kajoor mais yenn ku naa fi ba tay di noppalu de béb goog yi béb gi waaye bépp goo ko xam ne euh, làqoo naag baatin baatin na hmm? nga fa <laughs> bépp goog yi ne yenn ko jóge naa Mbàkke Kajoor ba tax yenn ko fi de hmm. boo mi hmm. Tuubaa ji la Mm-hmm. booba day mm-hmm. ba mu ngi ci liggéey wàccegul mm-hmm. waaye ne di dii jóge naa tuba ba ta yenn ko ay nga bépp gën a mel xool gën a mel xaal na ko nañ ko def foofu noonu noonu rek la waaye Cheikh Rafal nag na ngi sant yàlla ñaan yàlla na saa mu yokki leeram fa mu ne yàlla saa yokki leeram fa mu ne li li ma xam lépp mun maa da ci am la dama ko dama koy fàtte. teen ba de xanaa ten ba teen ba am na taarix teen teen teenu ma ne am na am na yàgg na yàgg na fa. ah teen ba yàgg na. Mhm. teen boobee. Mhm. ba yàgg na moom. Mhm. teen ba yàgg na waaye nag bi muy teen bi muy bënn nag booba. ba na ci ñun ñu ay mag lañu. waaye Cheikh daa wax ne. fa ñu fa fa ma rëddal bu ngeen ko moyul woon ba ba tey jot ngeen dox. Mm-hmm. ndax xam nga dafa dañu dañoo duppi nii. Mm-hmm. yàlla dogal mu taw mu tawte mu taw. Mm-hmm. Hmm? loola loola loola loola loola bu tax xam nga boo tawtee gase ko. day ndox ma lay dugg ci biir réewañ ci kan. ñu ñëw fa wet ga nag. duppiyaat fa. du ko ñu wax Saliou Gakou. gas ña gaskat yooyu day Saliou Gakou ca la woon. ñoo mujj ci teen boobee ci gas day Saliou Gakou ca la woon. dégg nga dana toog gébb dana toog gébb la mm-hmm. Ibra Fall nag mbojjam moomee nag laa lay wax ah. Cheikh Ibra ba ñuy bojj mm-hmm. sax yëpp yi dagg leen mm-hmm. mbooloo mépp daje mbaalu la lañ ko baalal mu dëll Cheikh Ibra dugg ci biir mbaar moomee fa daggaje fa daggaje yàlla ji xiin ba ñuul kuk tisbaar jot yàlla ji xiin ba ñuul kuk ah, lii mat naa Cheikh yàlla ji xiin ba ñuul de ba ñeex ko ko mu dënniru leen mu dënniru leen ñu dellu ñu wax ko ko ba mu génnee la leen ne dugg Bamba jiitu taw tey Oh. mii kaay la ndaw te dañ koo yónni <laughs> niwul saa dugg yi de dugg yi suñ bamba yi tawte at moomee mm-hmm. gi bu mboolem lu aalamin wër sébbul noonu ñu ne cim noor mm-hmm. ba ñu demee mm-hmm. ñu ne ah, lii mat naax Cheikh Ibra Fall kat ginnaaw ñëpp a ngi bay baxaw nun sébbuluunu kat mat naax Cheikh Ibra ba ñu demee ah nu de Fall danoo am lu nu jaaxal ndax ñan dendal ñëpp daña ngay bay baxaw ว่ายนุ่นเดชลูกว่ายนุ่มวังยินเด็กเกมีใครละมาคดักคนเสียบรักคนมีใครละมาคดักคนใช่ลลฮเลยใช่อืมมันมีใครละมาคดักคนว้าวว่างยินเด็กเกตยกกัดยอดนะกันเอาเงียบเงยไปบ่าวยินเบี้ยเบ่าวยกยอดนะไปนั่งมีใครละมาคดักคนเสียบรักคน waaw ah, mu ne mii kay loolu de boo wér loolu mu ne mii kay maa ko <laughs> dakkoon ah, ba mu génne lañu dugg suñ bamba ji tawte mhm. niwul saa dugg de mhm. dugg suñ bamba ji du tawte du tawte mii ndaw te dañ koo mu ne mii kaay ndaw si dañ ko yónni mm-hmm. ndaw nag bu ñu ka ko ka ko yónni boo ma lay wax ak ne ko yowal foofu fa mm-hmm. la <laughs> yem <laughs> fa la <laughs> yem de mu ne mii kaay la ndaw la dañ ko yónni dugub sëñ bamba ju tawte de wax de dugub sëñ bamba tawtewule suñu dagg sàq wale mm-hmm. am ñoo ko baaral mbaawam rat mu dëll mu dugg ci biir mbaar boobee bañ jekkee ba gisu lu leen jaaxal ñu ne ah lii mat naa Cheikh Fall kat mat ko àgg kat bay kaa ah, Fall ndeysaan jaaxle na ndax yàlla ji de ba ñu luufu ci sax yëpp dagg nañ leen mu dañu leen ñu dellu ñu wax ko ba mu ñu ah wax ngeen dëggat mm-hmm. waaye nag mii kaay ndaw te dañ ko yónni dugg bi sëñ bamba ji taw saa dugg yii de mais dugg taw te mii kaay la ndaw te dañ koo yónni kon nag mm-hmm. nun noo jàpp ci fu nu mat a jàpp noo jàpp mat a jàpp <laughs> noo jàpp mat a jàpp aw oh, Cheikh Rafal Cheikh Rafal mooy waaja Cheikh Rafal lay waaja xanaa njaarem de njaarem de moom bëriwu fa woon ay tànk njaareem këru njaareem ko daa nga dem. kër gu kër maam Seydou Fall gi nekk njaareem. ah nun danoo dëkkan. Hmm. nun danoo dëkkan. Hmm. nun danoo dëkkan. <laughs> nun njaareem lu lu daanaka gimmi na lu yàgg njaareem lan dëkk. Hmm. sa faatu xaw nag ñibbi si gébb. so man mii. man mii de keroog ba nga xamee saamam aliyanta. yaay sama baay. man baa fere dañ maa jox saamam ca waaye teel na sama alien te jëlee mm. jéege ngumba ñëw mbawal mm. di ma yóbbu damaa daw ba dugg ci ron lal gi sax mm. bañ ma indee ba njëriñam ñu naa doom yoon te xëy jànge damaa doom ne ñibbi <laughs> damaa doom ne daay ñibbi ñu di ma daal ah ñibbi waaw <laughs> waaye nag sëñ bi nan sant yàlla <laughs> an sant yàlla bu baax waaye nag dégg nga maa ngi gébbu ñooñee sëñ Madou Fall Daya mii sëñ Mor Ngoone Fall mii sëñ Moussa Guèye mii hmm? sëñ Moussa Guèye Mm. waaw peñen googee dara nga fa de ke sëñ Madu Pen moo ne moo ne naa leen jàkk mm-hmm. bën na naa leen teen mm-hmm. sëñ Madu Pen mii nag laa leen boole mm-hmm. bu fi doom ju doona ko tudd ku fi wàññi ko na ko ñaanal sëñ Madu Pen bàyyi maami tawa pen mu ne naa leen jàkk bën na naa leen teen moom sëñ Madu Pen ku fi judd na ko ñaa na ko tudd lool lool loolu wax kat Madi Penda mii teg naa ko fi seen kanam. maam Cheikh laa ko wax maam Cheikh laa ko wax de. Mm-hmm. moo ne Madi Penda mii def fu dëkk mu naan tawa Ndiassane tawa. ci dend dend eh, kees. Mm-hmm. foofu la ko toxal a indi. déggoo ñu naan sëñ tawa. Mm-hmm. dëkk ba lañ koy dàkkee sëñ tawa Penda déggoo ñu wax. foofee la ko yéen jël ne indi naa leen Madi Penda mii. su fi doom ju doon ko tudd. ku fi wàññi ko na ko ñaanal. xam nga léegi la waaye. mu ku fa masaa faatu mm-hmm. ak looloo nga woon fa buntu kër ba ak mm-hmm. loola mm-hmm. loola googee ku fa masaa wàññi ko fa la ñu lay indi ñaanal nu yenu ko la nu yenu booba de booba booba sar amul dara amul ba nu yen suñu bopp yi hmm? dañu yenu indi hmm? yàlla dogal nag nuy dox ba benn bis na am néew bu nu indi ba nu dëppee ci armée def gis goo gis nga ci penku kër sëñ sëñ nu fekk nu jàdd nuyu ko Mm. bon ko nuyoo mooy ana ngeen bàyyi ko ne ko ak jéba leen bàyyi ko mooy ngeen doon dox su ne ko dafa am ku gaañ woon indi ko mu ne ku ko doon jullee ñu ne ah, moom kat dañu ko jullee woon fa dëkk ba mm. mu ne su ngeen demee mm. bu leen fa jullee dee leen dee leen jullee ci dëkk ba dee leen jullee fii sange fii. dee leen sange fii di jullee fii. ndax si sëñ Tuubaa wax kat ba xam laay wax. sëñ Tuubaa wax na ne. suuf sii. koo xam ne kii. am na loo xam ne war naa ko def yow te te jëmale ma ko. suuf see ma ko ciy defal. bu leen fa jullee ci. di leen sanga ci dëkk ci dëkk bi di jullee ci dëkk bi. sëñ sëñ sëñ Fall loolu ko wax de nuyu naa gi jëmm. <laughs> moo nu ko wax de waaw di leen sanga ci dëkk bi di jullee ci dëkk bi <laughs> ndax borom dëkk wax ne suuf si lay dimbalee. Mm-hmm. ndox mi lay dimbalee. Mm-hmm. ne ku lu ma ku lu ma war ci yow te mun te tab jëmay moo def ko. Mm-hmm. su see ma koy defal se sëñ tu Cheikh laa ko wax de. Oh. sëñ Tuubaa ko wax de. ne ne ne loolu la sëñ Fall wax ne ne loolu la ko bàyyam wax. <laughs> kon nag jërë ngeen jëf rek yàlla saa borom barkeel seen i tànk. yàlla seen barke si tàgg man li ma xam lépp mun maa toog yow. waaw ma kay moom macha allah. moom macha allah mun maa toog fii di ko wax am na nañ ci tamit. lu lu lu lu kawe waaw dégg nga li sax maa a waat ne li ma te fàtte ko sama kanam. ma mopp la ndax ah. bu ñëwee mopp taag saa xelum bopp dong ah. man naa ah, li ma xam li ji fekkee eh, kër Cheikh Ibra la yow na nga tudd nag dëgg man Ablaye Ndaw Ablaye Ndaw mm-hmm. noo ñaan ci doole Cheikh Rafal nga mm-hmm, mm-hmm. kawe kawe kawe kawe ci ndaween gépp bàkki Cheikh Rafal Ablaye Ndaw bàkki Cheikh ma seen yoon yi ngeen def sama li lii lii wax dëgg yàlla ah jafe na ci taalibe mhm. ab taalibe mhm. ku ñëw naa ko naa bëgg laa xam sa sëñ nga wax ma ko mhm. di seetlu ko dara ah, te nun nun Cheikh Fall la ñuy nooyee Cheikh Fall la ñuy nooyee nun nag man nag ña doon ña doon samay morom ci gébb googee wax dëgg yàlla sant naa leen ndax fu yëngu masaa jote mhm. lu sëñ bi yëngal ñanga ñanga mhm. xel koom gi mën ca masaa dem mhm. lu waay baax la defe ne xel koom nga ko war a lekke si xel gi sëñ Saliou gii wax dëgg yàlla def def na ci dara de ndax liggéey la ko fi loo xam ne yàggul waaye barkeel na de parce que sëñ bi maa lox maa lox sëñ Saliou man de buñ ma sañoon sëñ liggéey bi ñëw na mm. kenn koy la gub sa kër dama mm. ngi leen di ñaanal nag ci doole dara mm. dëkk boobu dëkk gébb Fall day man de maa mën a wax ne fu moo tëddee guddi sañi bi gébb lay gént gébb lay bu may gént gébb lay gént rek bu may lay gént ne fa de lay gént ne fa waaw waaw gébb waaye nun nag nun sant yàlla ndax nun tund woowee 你还在看这事呢？马上。 benn la nu woon mm. ñi fi mbawar gi mm. di suñuy maram mm. benn la nu ku ci masa am soxla day soxla day day mel ne soxla si yow eh, ñëpp a ko bokk loolu lan daa def de mbawar geenu cosaanoo de bun masa dem ne dañ fay jëri soxna de def kon yaa ngi defar la nga am lépp da nga ko yor de la nga da ko yor te boo demee da ngay joxe ba kër ba ngay ñëw loolu yàlla defal na ko ci ñun nag waaw yàlla defal na ko ci ñun nag yàlla saxam guddal seeni fan yàlla saxam guddal seeni fan fan bu am yal na ngeen ko am doole si yàlla fa nga nii bii nii bii ah. Ah. puj bii ah. puj bi ñim tiim bari na mm. puj bii xam nga nii bi mm-hmm. mm. puj moo ko wàññee wàññi ba mu ba mu yem nii mm-hmm. nii sama bàyyi jëkk a daaj mm. ñeenti koñ la woon mm-hmm. koñ mu ne juróomi mètre doo dégg sa maam moor bi ca Baxdaad moor bi ko daaj moo ko moo sama bàyyi moo ko xar daajal ko ko nii bii puj sëñ Saar fanaan na ci néeg bi hmm? Hmm? sëñ Cheikh Fall Baye góor fanaan na ci néeg bi hmm. sëñ Cheikh Fall Baye góor fanaan na ci néeg bi puy bi bari nañu baax ñu tiim de baax ah, ñu mu de sëñ Assane Fall bi sëñ Moussa Fall wàccee bu liggéey dugg na ci néeg bi toog fi ne da roy roy laay <laughs> dongay dongay roy roy laay fii ah, waaw waaw ku baax ku ne dugg ni puj bii ku baax ku ne tiim xam nga nag nii bi moom kàdd la moom maa maa ko xaral fa saa wa mm-hmm. daaj ko ba dëkk ca ba ñibbisi fii mm-hmm. dajjilu ko nag andi ko daajaati ko fii mm-hmm. pal gayet la mooy ñëw fii de ñii mm-hmm. bi waaw pal gayet la mm-hmm. fi mu ne pexe yu ne ñu ngi ma ciy dugal da ngaa ba ma fi soog a ñëw da ngay def nii da ngay def tax maye saa nii bi <laughs> ci laa ko yéene dee barkel waaw ah, comme tiim nañu nii tamit de ñun tamit ba barke tiim na ko baax ku ne de ah. barke Cheikh Fall barke Cheikh Fall ah. sëñ Ablaye Fall nag nii bi tiim na ko nii bi tiim na ko de moom daal santaan nañ bu baax baax ji maa leen gën a kontaan man mi leen gën a kontaan mi nga xam ne li ma xam ni woo bari wax naa leen ko mm-hmm. loolee rek doy na kent te mën naa wax ne li ma xam romb na lii dama mm-hmm. ah li ma xam romb na lii mm-hmm. day li ma xam xëyul fii li ma fekkee ci gébb gii ah gébb gébb gébb gébb maa ko bëgg ak këf siyaal maa ko bëgg yàlla yàlla nan sunu boom dajaleeg mbuutum gébb rek man moo fi jógee yàlla may dajaleeg mbuutum gébb faal barke bi yàlla ak gaaña fa gaañu baax ña fa ne mm-hmm. gébb ñu baax rek fa ña fa nekk ñu ay kilifa la ñu mm-hmm. ay kilifa rek fa nekk mm-hmm. mag nekk ñëpp la defar na ah, da la la la la Cheikh Fall ne ma jëng fari saa moom dàq na si naa yili wa ca mbaxana ma Cheikh laa ko waxee ko rek <laughs> ah seetal loolu ah, ah dàq na si naa sama baay bu ku mu saa ñëw këram fekku ko fa mm-hmm. dañu na dem nga kër Mor Ngoone mm-hmm. bu néewul kër Mor Ngoone ne kër Cheikh Ñang ba kër Dayaade mm-hmm. Baye Dayaade de waaw waaw ah, benn lañu woon benn lañu woon ah, benn de kon nag nan delloo sant yàlla bu baax yàlla nañu yàlla yàlla nañu yàlla fayal rek sant yàlla bu ah, hmm? Demba maa Cheikh mu baax ma. moo jur bàyyi moom. waaw waaye yàlla na yàlla guddal seeni fan. yàlla na yàlla guddal seeni fan. sant naa yàlla sant leen na ngeen góorgóorlu nag. gis la nga liggéey gimiñ la. foo fekk toog mel ne ko dafa tàmbaleegul dara rek. mais ne ko tàmbaleegul dara rek. ndax li li li li lu lu doy. moo di ngëneel du doy. te ngeen ko koy ku ne da waaw mm-hmm. mel leen ne kuy soog a tàmbali si yoon wi rek mm-hmm. te itam kenn ku ci ne mm-hmm. sa kilifa ga nga gis def ko yow mu dëkk ak sëñ Fallu mbaa nga def ko ne yow mu dëkk ak sëñ Ablaat fi yow waa de man day sant naa sama baay ba ndax sama nii bi génn ma ko fii laa ne hmm? te wax dëgg maa ngi sant yàlla bu baax. Mm-hmm. alhamdulilah sama nii bi génn mm-hmm. sant naa sama baay sant naa sama ndey jekk. Mm-hmm. jigéen ñi may waxal fii dama leen ne. sama ndey day. li ma xam ci mu jox ko sama baay ci xale tabaski ku ko yoon sama tiim fees sama ndey. te yooyu xar boobu bu ko la xale léegi. waaw at mu nekk tabaski ah, nag. sëñ Cheikh mii ma lay wax naa dafaa ñëwoon sëñ Cheikh Baye góor mii. kere mu ñëw nee si. saaba yi xam sëñ bi naa bëgg a ñëw naa bëgg a ñëw ba genn takkusaan ah ndaw ñëw ne fii kër Baye Moussa Beye mhm. ñu ne waaw waaw mu ne sëñ bi ne bu subaa fii lay yendu si ah. mu da yónnee ca rakkam ñoo xam moo yar yibra bi yibra ngumbu moomi hmm. ali bi ko yar yibra mosunoo bokkub tool yibra hmm. hmm. mooy mu yónnee ca mu ne ko sëñ Cheikh daa wax ne bu subaa fii lay yendu si ba sabay ne ko na may def ko sëg ko ñëwal ñëwal na may def ba ñëw <laughs> ma ne ko ma ne ko sabay am naa yeneen xalaat man de mu ne moom luy Mhm. Mhm. ma ne ko damaa xëy sëñ Cheikh Fall du ganu gàtt de. mu ma nga yaakaar ma ne ko Saali mi aw nu yëkk kër gànna. Mhm. gànna mooy Chiré sax yu dëkkal yow xam nga ne. kër Baye Badara Diouf jo Baye Badara Diouf. gànna gànna Diouf. boo mooy naa gi sama day ma ne ko Saali mi aw nu yëkk kër gànna teen ko góoraay. ne ma loolu kat yaa koy wax. mu ma loolu moom yaa koy ma dem fa Saali mu ne bii. ma ne ko Saabay daa ne. sa sëñ Cheikh dafay ñëw suba. Mhm. mu bëgg sa naw yi ci kër ga nga lebal ko mhm. mu ne ko doxal mu ne ma demal ma ñëw. Mhm. waaye mu ne ko borom jàmm. mu ne ko faal mu ne ko yaa yónnee woon mu ne ko am na loo ko wax. ah Cheikh dama saa bàyyi ne daal bëgg nga lewal ko sa nawi ci kër ga ndax suñ Cheikh dafi ñëw samay ne ka bor de du ci am bor de du ci am mu ne kon muy amee nag mu ne def te yàlla sax saa bàyyi ne ko jàmm dëbb kat maa ngi kër ko indee Cheikh taal gàllam mi nga dégg nga xam moo ci baate njël sëñ Massa woote liggéey Cheikh Tall Gallo mooy ci baate boobu na sàgg nekk carrière Cheikh Tall Gallo moo doon ci baate kooku xamu ne dégg nga turam Cheikh Tall hmm? waaw dégg naa ko dégg Mbay Basiru Mbay hmm. Basiru Mbay boo mooy ànd ak mooy ànd ak sëñ Cheikh Fall hmm. sëñ ko kaay seet ndawal gi waaw booba nag rafet na suur na waaw waaye nag nan góor góor lu baax. boobu sa waajur Baye Moussa bi lu mu rayal suñu Cheikh Fall. boobu lu mu rayal suñu Cheikh. boobu dama ba ba ba ba ba ba ma ko nee. sëñ Cheikh kat du ganu gàtt de. mu ne ma nga ran ma ne sama ne mi aw na kër gànna teen ko laaj. saabaay ne ma loolu moom yaa koy wax. ma dem fa saani ne ko saani mu ne bii. ma ne ko sëñ Cheikh kat daa day ñëw fi suba saa bay bëggan sa naayu ci kër nga lebal ko ko ma demal ma ñëw ba mu yee mu ne ko borom jaama mu ne faal mu yaayu ko wax dama ko day sëñ bi dafa lay ñëw suba bëggan sa naayu ci kër gànna nga lebal ma ko saa li naka borto du ci am mu ne ko nu muy amee nag ma xaar yaxat def te yàlla tax Mm-hmm. saaba yi ne ko jàmm rëpp mm-hmm. xanaa def sa yàlla tax yi ne ko jàmm rëpp ah. Ah, waaw waaye nag nan sant yàlla baax rek mm-hmm. yàlla yàlla barkeel seenu yoon yàlla yàlla barkeel seenu yoon te yoon wii yàlla na ngeen ko fi doxaat si si fekk ma i doole dina la fi fekkaat alhamdulilah yow mii sa maam jalaa baax le sëñ Cheikh Ndaw ah, kooku ma saa fekkee uh, addisam de da ngay ree rek <laughs> bay waaw waaw li wax dëgg xam nañ leen wax dëgg yàlla. Mhm. ñëpp xam naa leen. Mhm. tax kay tey ñu ne woon nañ ñëw. siyaar si siyaar si la. waaw euh, xamante waale tamit. waaw waaw beneen yoon ne. ñu mën a ñëw waxtaan gën a waxtaan gën a yendu gën a yendu waxtaan. waaw góor waaye liñ fi jot am nii moom doy na sëkk ndax nag wax dëgg yàlla benn benn maam Cheikh Fall nee na rek. loolu rek doy doy na wax. Mhm. mais naa nettali ah, waaw hmm. waa ji bu ñuy wax mbaawal mbaawal mbaawal kat hmm. cheikh rafa la daa wax léegi naa daa wax naa mbaawal mbaawal nag taalibe mbaawal mbaawal ñu gétti lay doon kat hmm. <laughs> da lay jege tey mbaawal mbaawal daa danaa danaa yo ñu gétti la kat baba baba dem gi ñuy dem xewul Mm-hmm. voilà moo tax ma tey li mbaam mbaam la gétt le du du jiite gétt ba nag <laughs> loolu laax booba <laughs> ñu gétt waaye man sama maam moorami mm-hmm. ah moorami li ko yàlla defal yombul <laughs> booba mm-hmm. booba ba tuwaar la booba kër gi bu jant so waaye nga xasa xasaay yaa ngay jolli ah, waaw sëñ ma bi moo jëkk a takku ku sant Jóob di ku ne ca lëgën mhm. sëñ moo demin taa ko wax de mhm. ku ne ca lëgën déet seen lëgën lëgën ngay dajal mhm. sëñ moo demin taa ko wax de moo ne boo nee ca lëgën déet seen lëgën lëgën ngay dajal lëgën ngay dajal ah nataal bii ci ginnaaw de bëggoon naa xam kan la hmm? man a nataal bii ci ginnaaw bii ci den dëkk kooku sama baay ah, ma nekk nii waaw moom laa dendal noonu nii waaw ah, yaa dend ak moom mii. waaw maa dend ak moom la xanaa xam nga boo ma xoolee xëy na. waaw <laughs> waaw xool ma ni ma rase fii <laughs> ah. saaba kooku saaba ya day xaw a nuroog si ñëpp du saakoor ci lañ koy kuy ñëw moom laa xaar si ñëpp saakoor bi sama baaya waaye nag yal na saa barkeel seen tànk yi yal na barkeel seen tànk yi te fi fekk na fa ay yoon yoon ci doole seen